ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ay agent ñoo nar a tàkkalikoo ak entreprise bi ci seen coobare bu ñu sukkandikoo ci bataaxal bu direction générale bi tabb mu mel ni rek la poste àttanatul mbooloo ma fay ragal di tax na mu nar a tàkkalikoo ak ñenn ca ña fa doon liggéey. post lu muy liggéey mënatu ko mënatu ko dundal looloo tax nag ñu ne léegi dañuy jàll ci phase restructuration boobu boobu nag dañ koy def nag ci juróom be waaw ci deuxième semestre bii ñu dugg si balaa fin 2023 dina am benn groupe bu war a dem noonu lañ koy échelonné ba juróom at yi daal di mat. bu ñu sukkandikoo ca ki jiite syndicat bi daañu amal ay waxtaan ak administration bi ngir mën a jàppale ngir mën a gunge ak anam yu wóor ña nar a tàkkalikoo ak groupe La Poste. année bu nekk dafa am ñu ñu wax ne dinañ dem comme année 2019 2023 c' est 200 et quelques personnes année ñun nag li nga xam ne moo si suñu wàllu mooy comme nee nañ volontaire la bu fekkee na am na liggéeykat yu bëgg dem ñun dinañu toog ci négociation yi négocier ba nga xam ne ñiy dem dañ leen jox loo xamante ne vraiment dina ko jar wala loo xam ne ëllëgee dinañ ci mën a defaat seen àdduna ci leneen te du leen gaañ. ci at yi ñu weesu groupe La Poste amee ay jafe-jafe ci fànn yu bëri ba sax bërëbu liggéeykaay bi tàmbalee dellu ginnaaw ñàkkum koom-koom ak mbooloo mu jéggi dayo ba fay liggéey te entreprise bi àttanatu ko looloo waral administration bi indi ay jéego lim takku ci ay liggéeykat nar faa jóge ci kàddu ñi bokk ci syndicat bi loolee day waral Poste defaruwaat te gën a méngoog jamono